te carapide yi ñoo dem Fann ñu ngi taxaw sama digg secteur maa ngi taxaw digg Grand Dakar su dax ma ni digg Grand Dakar maa ngi taxaw si entrée Grand Dakar boo jógee amitié Rilis dugg si Grand Dakar maa ngi taxaw ci intersection bi boo jógee Escort Sacré waa ci jëm si Grand maa ngi taxaw ci diggante bi nga jógee El Mansour town ñëw war dugg si Grand Dakar maa ngi taxaw ci entrée bi ñëw boo jugee Grand Dakar boo jógee boo jógee Grand Dakar gaz Casamance di ñëw Ridis maa ci intersection maanaam maa ngi grande Grand Dakar li ko waral na gis ngeen sànq li wan léegi wan nañu leen liggéey boobu nga xamante moom moo am biir Grand Dakar mu li nga xamante mooy pavage yi et eh, ñun ñu dëkkee fii côté bii ñun liggéey bi metti na trop suñu côté parce que ñun ñun dañ ñoo ñun dañoo tëj ci côté yëpp sunu koñ urgence dafay am kenn du mën génn depuis plus de deux wala trois mois loolu la ñuy dund urgence dafay am kenn du génn guddi bu jotee nit feebar doo mën a génn tey maara day taali bu ambulance waroon dugg si koñ bi fu muy jaar amuñu fu mu jaar et loolu ñu ngi koy dund depuis depuis depuis depuis très longtemps yéen ñi nga xamante ne yéen a liggéeyu pavage yi fii ci Grand Dakar dañoo bëggoon ngeen gaaw ci tuuti quoi ngeen loolu ci gën a mën a jàppale rek ngeen mu gaaw ci ñun parce que mi ngi ñuy porter préjudice oto yi kenn gaareetu ko ci bunt kër yi gars yi dañuy génn ci mbiti ci tali ya gaare fa oto yi te xam nga yooyu yëpp wóorul insécurité bi am ci réew mi yooyu yëpp nañ ko bàyyiwaat xel waaw liggéey bi am na solo yéen a ngi góorgóorlu parce que lépp loo xamante ne dindi woon ngeen ko fi yéen a ko fiy jéem a defaraat ñu leen di jaajëfal bu baax a baax daal boo leen ñu jàppale woon bu baax a baax ci gaawaayu liggéey bi dina am solo beneen bi beneen bi ci topp mooy maa ngi ni taxaw Grand Dakar xoolee mbalit mi affaire la rek xoole mbalit mi lii nii dañ ko fi indi soti ko fi bon parce que kees yi nga xamante ne nii ci la waa UCG war a def mbalit bi pour bàyyi ko fi positionné ko fi pour ku ñëw sotti ko ci gars yi dañ déplacé kees yi parce que dañ toll nee nañ ci moment boo xamante ne ni dañuy bañ jafe-jafe bu amee ñu ñëw laqaa yàqaale kees yi moo waral déplacement bi am moo tax gars yi ñëw sotti fii mbalit bi mais ñoom UCG ci seen liggéey bu rafet ci seen taxawaay bu rafet macha allah fii ci suñu secteur ci Grand Dakar ñun man de dama koy seet gis te maa ngi koy wax seen liggéey bu rafet seen taxawaay bu am solo fii ci Grand Dakar ñu ciy rafetlu di leen jaajëfal bu baax a baax que fii ci Grand Dakar ngi ci góorgóorlu gis nga lii ni mu demee nii ci même pas trente minutes fexe nañu ba oto bi mi ngi ñëw jël li nga xamante ne mooy mbalit mi te da koy yóbbu kon maanaam taxawaay bu mel noonu taxawaay bu am solo la te loolu bëgg nañ ko ci ay liggéeykat. ba tey ñu ngi leen di félicité bu baax a baax parce boobu ak léegi dëgg la jafe nañu gis oto mbalit mu génn parce que xam nga problème yi am ci réew mi gars yi xam nga léeg-léeg sàmbeen yeeg mbuubeen yi profité ci affaire bi jël benn oto mbalit taal ko xam nga mu doon loo xamante ne suñu pertement lay doon parce que ñun secteur Grand Dakar fii bu dee ñun dañ fay lakk oto mbalit suñu oto lañ lakk parce que oto boobu moom moo fii ñëw pour jëlal ñu mbalit mi yóbbul ñu ko kon nañ bàyyiwaat xel bu baax a baax beneen bi mbokk yi alte mbokk yi c'est l'actualité nag ku ko xam-xam ni ñi ngi ci jamono boo xamante ni jamono bu metti la ñu ngi ci jamono boo xamante ne ni jamono bu doy waar la liggéey yi ñu génnuñu mënuñoo dem fenn man mii sax mënumaa sori pour def plateau sama koñ laa mujjee toog pour def am nañ ay yaay ay papa yu nekk ci dëkk bi amuñu jàmm amatuñ jàmm suñu yaay ñemetuñ génn suñu papa yi ñemetuñ dem fenn da nga gis borom kër boo xamante ne bu génnul du am dépense kooku day obligé toog ci biir këram. noonu ak noonu chaque jour ñu koy def et à chaque fois ñan ñooy perte ñun ñooy perte ñan ñooy xale yi ñooy perte ndaw ñu ñooy perte suñu yaay ñooy ñàkk suñu papa ñooy ñàkk mu nekk loo xamante ne nii lu métti la ñu ngi koy naqarlu nañu bàyyiwaat xel ndax lépp lu mun a am ci réew mi rek jàmm réew mi moo ëpp solo lépp ñu ñaanaat yàlla na réew mi am jàmm yàlla yàlla def jàmm ci réew mi te sàmm sàmm sénégalais yi. ci barke Seydina Mohamed yal na yàlla sàmm ñëpp sàmm ñëpp yàlla defal jàmm képp koo xamante ne yaa ngi juddoo jóge ci réew mi bàyyi ko ci réew mi yeewoo ci réew mi di dund ci réew mi tey foo mën a nekk ngay sénégalais yal yàlla sunu borom sàmm la ci barke Seydina Mohamed mbokk yi bantambaa bi tey day doon bantambaa boo xamante ne nii tey dañuy ñëwaat rek parce que parce que làmb amul weekend bi encore une fois beneen mbir à chaque fois bu situation yu mel ni amee nga arrêté làmb est-ce que yow bàyyi nga xel promoteur bi nga xamante ni jël na xaalisam dugal ko ci làmb di jël organisation jël temps jël lépp def ko ci làmb ji ñëw yow nga toog ba jour bu la neex rek nga bind décret wala nga bind benn note nga ni làmb du mën a am pour lan est que bàyyi ngeen xel kooku nga xam xaalisam la ci def on prend l'exemple de Mansour Ba le promoteur de Jambar Production c'est la deuxième fois qu'on qu'on qu'on son combat et xaalis bi mu ci def nag mbëri xaalis bi ñu préparé nag mbokk yi bantambaa dañuy ñëw ci spécial Lac Rose fils de Balla spécial ñàkk jëriñu caatu yoof muy combat boo xamante ne ni ETDR Events moo ko tëgg ETDR Events à la base c'était Kandji production bi muy tàmbali Kandji production c'était sa personne moom la personne de Kandji moom moo doon ñëw di tëgg làmb doon promoteur mu doonoon Kandji production tey nag mu dem évolution am développement am mu am ay moyens ak ay partenaires am ba ni daf koy jël du jàppalee ko làmb tàmbaleewul ci lii képp ku nekkoon ci làmb mi ngi la doon jàppale mbër yi bëre léeg mu dem ci jàppale leen ànd na fekk ay promoteur ànd ak ñoom liggéey waaye bi yoon ETDR events moom moo jug muy entreprise bi moo jug ngir tëgg làmb taxawal na fis de Balla ak Lac muy combat bu am solo taxawal na ñàkk jëriñu caatu yoof muy combat yu am solo te yooyu yëpp mbokk yi ko gis ci biir Bantamba wàccaay gi loolu yëpp ci biir Bantamba lay xewee ginnaaw loolu dañ leen di bàyyi ak suñu réalisateur mu bégal leen ci wàllu làmb defal ñu sélection bu neex boo xamante ne dinañ leen ko mën a jox ci làmb ngeen ñu bégalante ci ak yéen na leen seetaan loolu sama R4 dafa toj nag affaire bu booy Grand Dakar la let's go. ñooñu nga xam ne ñu leen di nuyu di nuyu Maïcha madame ñu koy nuyu bu baax ay sumindi ñoo ngi nuyu sunu mbokk yi nga xam ne ñu ngi Europe yëpp ñi nekk Amérique ndeysaan xoolal loolu rek suuf suñuy sotti ci dàll yi. culture kese la lamb ndeysaan Garga Mbossé ngi noonu jàpp ci pegg yi mbokk yi nekkoon dañu nekkoon ci palmarèsu ñaari mbër yi nga xam ne ñoo di combat bu mag bi danoo wax leen léegi li nga xam ne moo di Garga Mbossé sept victoire ak cinq défaites yaakaar naa ni alaaj Papa Dieng dina commenter loolu bi laaj na koy jàppale ndax pare nanu fëgala toj na benn nen am na sunguf sumu fel Garga Mbossé jaarul fa ngelaw la jaar fëgal la Garga Mbossé ñoom ñaar ñu ngi leetoo moo tax béykat yi gis nga foofu ñoom xale boo ci jàng da nga jàng ñaar yëpp waaw bu la ci jaaxal nga teg ba ca des waaw fëgal la naa dem loolu mooy njàng mi mais fëgal la buy bu yàkkamtee combat bi ñàkk day yàkkamti day yàkkamti jël nga tànk lay bëree toujours Garga Mbossé da yokk fëgal ñoom ñaar ya daan na ko wala daanoo daanoogul wala daanoo loxo ba laalu suuf loxo droite loxo droite bi yëkkati na lu fëgal kon daanu fëgal dafa jaxase lamb ji ndeysaan waaw ko jaxase fëgal pourquoi mu bëree nii non bëree kenn du ko yàkkamti fëgal dafa bëree laa mel ni ko dafa mel ko dal bëree dul ak sago xoole yi muy def lii mooy lan combat capital bu toll nii nga yàkkamti ba naan arbitre bi sublel tant que bi sifleegul fan la ko teg ak ñi mu àndal ak écurie bi. man yàgg naa xam ne booy bi su liggéey day dem yoonam. alaaji Papa Dieng ba tey man li ma remarqué euh, mooy sa bëree bii mujj yi ak Double Less na nga bëree keroog jaaduwul mais tey bi nga ñëwee da nga jël bëree bi jox ko foog la taxaw di ko xaar loolu loo travaillé la wala lu la sos def loola wala loo entraîné wala sa écurie ñoo la ko sant. tonnerre a ngi noonu yëkkati loxo yi am na douze victoire waa douze victoire trois défaites Moussa Dioum Papa Sow ak Sa Thiès ñoo ko daan fa kii nag nga xam ne moo di Garga Mbossé Garga Mbossé am na sept victoire gar Garga Mbo ah, ne mbokk yi ñu ngi fii ci stade Iba Mar Diop tey dimanche 23 décembre 2012. mbokk yi ñu ngi ci lamb ji nga xamante ni moo dox diggante Garga Mbossé Tonnerre ñu ngi ci 18h34 minutes. bala maa génne numéro bi doon door Garga xajal na ko. voilà bu nekkoon Tonnerre wax na ne li li mu indi. li muy ni mooy xeex. waaw mooy xeex. waaw waaw na séntu nag xale bi song ko. xam nga keroon nee naa Garga xeex man sax fi Tonnerre xeexee damaa jaaxle. mu ne ah yàgg naa xeex. waaw dëgg Babacar xam nga ni gis na ko. waaw de mi ngi jël jël waaye na changement de pied yi. distance bi. changement de pied yi Garga di def na ko moytu. lii bu bu continuer baaxul ci Tonnerre. waaw da koy gëmloo boppam. da koy bëgg nax. Tonnerre dóor na Garga dóor na ñu ngay xeex. jot Tonnerre Garga. Tonnerre ak Garga soog a ngi dóor ci suuf. Tanaay rek ngi wut fu mu jàpp. Tanaay jàppul dafa wéeru mais jàpp mu ngi door ci suuf. dafa wéeru garga garga ak Tonnerre ñoom ñaar ña ngay dem. ndax déedéet kat appui amul. garga yëkkati na ko door na ko ci suuf. garga yëkkati na ko door na ko ci suuf. lay lay la la. le nouveau garga Mbossé est arrivé. Ronaldo da koy song. song na ko. élan la doon wut. élan la doon wut. loolu song li mu doon en arrière yëpp. da koy song moo tax ma ne la baaxul ci Tonnerre. baaxul ci moom. da nga koy seet mu njóg rek nga xam ni mbër la. Garga ngi. lewtoo Garga Mbossé mi ngi mel ni kuy arrière Lac ngi wàcc Garga ngi wàcc Garga bloqué na Lac Rose Lac moo ko song Garga ngi dóor ci suuf waaw Garga jàpp na comme mu daan jàppe de Garga ngi dóor ci suuf Lac mi ngi dóor ci suuf génn na Lac Rose dina bëggoon. mu daanu ci ñoom ñaar. kaw na ci am de. oui. bañ na Garga bañ na. Lac koy plaqué. Garga plaqué na. Lac bañ. gargaa ngi Lac Rose yi dóor. Euh, Lac. da koy daan Lac Garga daan na Lac Rose. da koy daan Garga daan na Lac Rose. waxoon naa la ko. Garga daan na Lac Rose. da koy daan Garga daan na ko. général Paf production mbokk yi moo ñu wàcc combat bu mag bi dox dox ci diggante Moussa Ndoye ak Garga Mbossé mbokk yi arbitre bi sifflé na Garga Mbossé à droite Moussa Ndoye à gauche Mame Boye Diao le directeur le directeur lañ ko tuddee doomu Kolda bi ki defar Sénégal ki nga xamante moo ànd ak xale Sénégal bëgg ko kooku lañ tuddee bis bi Mame Boye Diao mu ànd ak monsieur le ministre des sports Matar Ba moo Garga xeex nañu attention Moussa Ndoye Garga Mbossé sànniwaat na attention Moussa Ndoye daw na jël Garga ñoom ñaar daje nañu jàppante nañu Moussa Ndoye ak Garga Mbossé ñoom ñaar fu ñuy mujj Garga bëgg na ko mboot laa ilaaha illallaah ñoom ñaar Garga Mbossé daan na Moussa Ndoye maa la wax lii jël ba leer na Garga Mbossé daan na Moussa Ndoye jël ba leer na da ko doon mboot mu suru xool ko Moussa Ndoye Garga Mbossé mbokk yi Moussa Ndoye da doon moog Garga dañoo déclenché ndoom mbot wala moom déclenché na mbotam garga sul xool ko parce que moo ko sut moo ko ëpp relonge félicitation garga mboose ndaanaan nga ndaanaan la ci wàllu làmb Moussa Ndoye champion nga ci wàllu làmb daan nga ku nekk tu n'as pas démérité da ngay wone fulla ak fayda ci sa làmb kon tey boo daanoo làmba mel noonu sport la tey ngay daan tey suubu ñu daan la garga mboose yoon wi tijjeeku na maa la wax lii yoon wi tijjeeku na garga garga ndaanaan nga da am cër ci làmb garga mboose ñëwal jël ko da nga am cër ci làmb ñëwal jël cër nga am ci làmb ndaanaan nga yow félicitation. mbokk yi ba tey ci wàllu bantamba ñu leen di fàttali journée yu am solo yi nga xamante ni mi ngi ci sunu kanam wàllu programmation Karajo ñu ngi waajal bisu le 5 ak le 6 et cinq xam nga nii combat bu am solo moom moo ci am ndax Zambala lañ ci tëgg komba ak ki nga xamante ne ni moom mooy Belende Belende di l'international sénégalais xale boobu nga xam ni mi ngi génn bitim réew di représenter réew mi. daje ak Zambala muy combat bu am solo. ñi ngi waajal ñi ngi waajal Mbéwane production mi ngi waaj a ñëw Karajo mu nekk journée boo xamante ne macha allah am solo la Diourbel production mi ngi waaj a ñëw mu nekk journée boo xamante ne aussi journée journée bu ñëpp di xaar la Karajo bis yi nga xam ne mi ngi sunu kanam waaye dañuy taxaw seetlu wala dañuy taxaw ci benn bés wala ñaari yi mujj muy le vingt ak le 27 le 20 août ak le 27 août fi ñu toll nag ñaari combat yooyu mooy journée yi nga xamante ni yoo gën a mag ci journée yu nekk ci sunu kanam mooy journée yi nga xamante ne ni journée yu riche la ci journée yi nga xamante ni ñu ngi sunu kanam moo tax mu bëgg ñu waajal ko amateurs yi waajal ko ñu tàggatoo macha allah tàggatoo boo xamante ne ni tàggatoo bu am solo lay doon parce que famille lamb buñ daan tàggatoo daan nañ tàggatoo ci bis yu mag daan nañ tàggatoo ci bisu Balla daal daan nañ ci bisu Modou Lo Eumeu Sène daan tàggatoo ci bisu Bombardier Tapha Tine Lac de Guiers Gris Bordeaux Ama wala Boy Niang mais yàlla suñu borom dogal na bi yoon ci nii lañu koy tàggatoo ta war ko tàggatoo ci diggante Youssou Ndour ak moor Kankan ay xale yu am solo di journée bëri ci journée boobu bi tey incha allah promoteur bi koy tëgg di promoteur bu bees waa làmb war ñëw wane ci wane ci li nga xam mooy jàppale gi waaye di am benn wax bu ñu ciy wax rek waa CNG CNG de lutte nañ ñu jàppale waat ci saison de lutte bi durée saison de lutte bi ñu xam ko ñu xam ne saison bi day tëj octobre et day tëj mois nangam mais bu fekkente ne dañoo bëgg chaque année ñu bëgg a def prolongation prolongation bi boo ko defee ba pare euh, promoteurs yi bu ñu renvoyé combat yi dañuy am jafe-jafe wala nga ñëw ba ci làb bi su làmb ji muy taw kenn ñaanu ko yàlla xam nga yooyu yëpp ay mbir la yoo xam nañ ci bàyyiwaat xel CNG déwén bu ñuy dem bu ñuy démarré waat saison bi ñu démarré ko bàyyiwaat xel durée bi mu war a commencé du premier octobre jeex la en juillet ñu xam ne lool mooy une saison saison bi def li nga xamante ne mooy deux mois après ñu reprendre loolu daal wala trois mois ñu reprendre loolu daal la ñu bëgg ñu bàyyiwaat ko xel bu baax a baax a baax a baax mbokk yi loolu lépp ngir bëgg làmb gën a dox Sénégal ñu ñoo ko moom lamb moom mooy sunu sport national yàlla na réew mi am jàmm loolu ci wàllu programmation la woon waaye Karajo na ami mon frère Reus le pro res le pro mooy borom caar yi kooku xale la ndaw la taalibe maam Cerno Ibra Faati la borom daal ñoo bokk papa man moom maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax xale la am na jom bi ñuy xamante du tey booba amagul place man xamaguñ ma mais boobu ba léegi mi ngi góorgóorlu mi ngi ci ba tey jii mi ngi post Thiaroye si ginnaaw banque islamique bi malay lay kontaanee mon frère di la ñaanal saa borom sàmm la dooley maam Thierno Ibra Fati borom daaru rës le pro yaa fi ne yaa mën yaa pour doole mon ami ndeysaan Zambala moo tooñ noonu moo la féetee à gauche bëgg naa dem jege nañu saako yi Zambala da ngaa nar a génn Zambala dóor la gauche droite ndeysaan oxo drapeau Abdoulaye Diop Sam moo fi woo tey ndeysaan bëgg na xeex dóor la ko ñu ngay xeex ñu ngay na tànk ba Boy Faye jàpp na tànk bi bëgg na ko plaqué la ilaha illallah eh waaye ndaw turam bi mu ngi ngay dóor am na penalty mu ngi ngay dóor laa ilaaha illallaah ee eh, waaye daw mu ngay dóor daa bëgg a génn daw ba ci ngóono la jeex na jeex na daw ba ci ngóono la bokk abi bi neen dara amul laa ilaaha oh, gaañu na Boy Faye gaañu na ci tànk Boy Faye gaañu na ci tànk oo oh. ndeysaan mbokk yi at bi bisub la na grand combat baa ngi noonu ndeysaan mbokk yi Bokel production fi woo ndeysaan ndeysaan ngeer ngeer tibb na suuf ngeer bu na suuf ndeysaan ñoom ñaare ngay xeex jàppante nañu ngeer bu waxi naan ngeer bu sap la woon léegi doonul gerte ngeer bu sap ngeer bu taasi nga léegi la woon ngeer bu waxi naan la moom ma leen ne dafa gëj a dafa gëj a bëri ngeer ak Blindé massa massa téye leen ko téye leen ko waaye njeer ndeysaan waaye Blindé daanaka boo xoolee ngeer bilaay ndeysaan moo daan boppam a ah, jël est-ce que dafa jël coup bi coup bi coup bee ko daaneel oh. daa daa ñàkk repère ci làmb te ki muy bëral xale la ndeysaan xale la xale la nekk ci digg dooleem ndeysaan maanaam nag bi làmb ji taxawee ñu bëri dañ ñu lu waral loolu ndeysaan ngeer bu sap waaw moo féete seen càmmoñ moo ngeem boo bi Pape Tine syndicat moo ngeem boo ngeem bu Lagos bi na Lac Rose doon na dóor Pape Tine jàpp na ko Pape Tine fi mu jàpp baax na ngeem bu googu muy wut bu dugalee loxoom baax na Pape Tine syndicat ngi dugal loxoom ci ngemb li damay ragal mu fàqat ko Lac Rose Patine syndicat Patine syndicat Lac Rose dóoraat na ko ci suuf daa bëgg mu sigi Patine syndicat wéyale na ko Lac Rose bañ na mbot ma bañ na ñoom ñaar ñu ngi bëre ñoom ñaar ñu ngi bëre ñoom ñaar ñu ngi bëre ñu ngi bëre bëre bu rëy ku ci nekk ngeen di teg ñoom ñaar ñu ngi di tekk ñoom ñaar ku ci nekk di xaar sa morom fu mu juumee nga daan ku nekk ay pexe ndeysaan xale yu jigéen yi ci tribune bi noo yeetul dina am ñu ci daanu crise dina am ñu ci le combat Babacar bot ba bot la bañ na Lac Rose Pape Lac Rose daan na ko Lac Rose daan na ko jël bu rëy cherché la victoire. il a cherché la victoire. xale bu mën a bëri la. Lac Rose xale bu mën a bëri la ko jaay. xale bi bëri na bëri bu rëy. Lac Rose bëri bu rëy la ko. Lac Rose. bëri na ba daan. c'est un fils de ñaari xale yu mën a Dakar. Lac Rose bëri na bu rëy la ko jaay. bëri bi da nga attaqué fermé jéem amoo nga jéem amoo. nga continuer di jéem insister lu tax loolu waaye arbitre bi sifflé na mbokk yi ñu ngi fii ci stade Iba Mar Diop Mame Balla ak Lac ñoom ñaar ñu ngi léewto ñu ngi xeex jàppante nanu jàppante nanu Lac Rose ak Mame Balla ñu ngi xeex dinañ dóor kenn mu daanu boo mooy tuul de ñoom ñaar Mame Balla féete ndijoor Lac Rose seen càmmoñ Mame Balla ak Lac Lac Rose jël na Mame Balla daan ko Lac Rose jël na Mame Balla daan ko. Lac na ko. bëtt na ko da koo bëtt. am na nu champion lamb ji yàggul. Lac Rose mi rythme bi muy bëree sax. lamb ji yàggul xoolal lamb ngi nii xoolal. Baba Diallo jàpp. da ngay Lac Rose vitesse day bëree xale bi de. dañu ngay fecc bu daanee rek nga xam. dañu namoon ndam ah danoon namoon ndam. ñu <laughs> ngay pocc. boo xoolee ci làmb ji bi nga sifflé damaa dox ci kawam mu rëkkale bu rëkkalewul woon dañuy xeex man ak moom ba kenn kaaw morom bi. waaw mais gis nga. gis waaw dama ko ëpp doole fuuf. kon na nam bi Pape Mor Lo la ko dem na. la ko topp na Pape Mor Lo la ko topp na Sokone. Sokone nu. Sokone nu moo ngeen moo ngeen bu xonk bi. waaw loolu lañ ko sant. Pape Mor Pape Mor Lo am na lu muy waaj. loolu la sant loolu lañ ko sant. am na lu muy waaj. loolu lañ ko sant. am na lu muy waaj. lii lañ ko sant. ñu ko bloqué ko bu mu xeex ak yow. waaw sa centre de gravité moo gën a suufee. la grosse ak benn comme ça nga xeex ak moom ci suuf. loxo bi bañ jàppul benn bi war mooy. Pamor loolu dafa bàyyiwul la grosse bëri. bàyyiwul ko mu bëri. xam nga gis nga. Pamor loolu la grosse doon na ci suuf. gis nga. la grosse a ngi doon ci suuf Pamor la. Eh. Pamor la daanu na wala daanu. Pamor la Pamor la daanu na. Pamor daan na ko. moo ko ëpp doole. moo ko ëpp doole. Modou Anta toj na. Lac Rose toj na nen. toj na nen ñu ngi leewaatu. dimanche 3 février 2013 stade Demba Diop. Modou des marchands ambulants. Anta Lac Rose ci digg géew bi. dóor na léegi Lac Rose sànni na léegi waaye dalul. waaw ah, Modou Anta gi noonu ñu jàkkaarlool moom moo mel ni guddi woo doom ci kanam gi euh, Malick Thiandoum. waaye loolu du doom. lu mu doon daje nañu ñoom ñaar daje nañu. xeex nañu ba max na ko attention xale bi rëpp day génn attention rëpp nañu ñëwaat leen. ah doole feeñ na foofu doole feeñ na ah, am na détermination waxoon na ko ne boo taxawee mu gaaw. song na dóor ko bëbax ko xale bi lépp génn ci zone de délimitation bi arbitre bi woowaat leen. mais Malick dafa mel ni dafa mel ni moo am te dafa bëgg bëre moom tey. mais Lac Rose mooy diriger combat bi pour le moment. waaw xale bu mën a bëre la xale bu waane la. nekk na ci daw nañ ko daje nañu ñoom ñaar. daje nañu mu doon te ña. Lac Rose jàpp na bu ñu àggee fii moom bu ñu àggee Lac Rose jàpp na dëkk na jàpp na ñu koy. jaay Daglos jàpp na jàpp na de ñaari loxoom yépp jàpp na Lagros mayi ko fu mu jàppee loxo droite na ñëw na na ko yëkkati taxaw na doonte Lagros mayi ko ak na oh, mu doonte oh, oh. bëri na bal na ñaari loxo léegi nag un combat na ñaari loxo bal na ñaari loxo takk na mu doonte da koy takk ma ngay jéem a takk Lagros xëcc na dafa ndànk dafa ndànk ko mu doon jënd ko mu doon takk ba Lac Rose mag na lakk na bàyyi ko mu ne taxawal mu doon takk ko mu doon ko biñ na na xale bi bañ na door na léegi door na mu doon te mën a bëree mu doon mën a bëree Lac mën na bëree ku ne yaa ngi déglu sa morom ku ne yaa ngi déglu sa morom ñu ngi Lac Rose def na maninam mu doon te dindi ko mu doon te def na maninam Lac Rose dindi ko yëkkati na ko bàyyi na ko yéen ba sànni na ko daan na ko ahí Mul Malick oho Lac Rose daan na ko jëli bu rëy man jëli bu rëy da ko yëkkati xalab da ko yëkkati xalab ko toj ko toj ko waaw mbicc ko Thank you. dafa leer dafa leer a nekk sunu càmmoñ fils de Balla moo nekk sunu ndeyjoor alaaji Balla Diop li li ma si jaaxal ñoom ñaar ñëpp tànk càmmoñ lañ jiital waaw waaye maa ngi la doon wax naan la dina am ku sàcc moroomam fëlim macha allah di leen fàttali association des ressortissants ah. yi nganda attention dafa leer fils Balla ñoom ñaar waa Nganda ñoo woote bisu le 6 avril incha allah foofu ca terrain municipal bu Nganda. bëgg ci taf ko ci kawam pour. pour pour attention loolu ko bëgg a def. waaw dal na ko dal na ko daan na ko. daf na ko ko daf na ko tël ko daan. waaw loolu la doon la ilaha illallah daan na ko. Tapha Leer taf taf na ko tël na ko daan wax arbitre nee na Fils de Balla daan na Tapha Leer daan na ko Fils de Balla daan na Tapha Leer jët li gi xaaroon waaw waaw waaw la rek lamb moom xam nga ñaari ndaw yi pare moom aari waaw ku yàlla jox rek borom bies doore moo nekk la jox quoi waaw waaw que le meilleur gagne indil ko combat bi lan la lan ngay contesté fan ngay contesté gauche comme ni Fils de Balla def exactement ma liggéey déjà moom mi ngi regroupement équipe nationale waaw attention ñoom ñaar mi ngi xeex ak moom ci suuf Fils de Balla général bu Malika mi ngi door ci suuf attention Fils de Balla am na lu mu bëgg a def général bu Malika Fils de Balla war na ko ndombo waaye trois appuis Père Tapha trois appuis trois appuis trois appuis ba tey benn genou bi mi ngi ci kaw attention ma ngay jóg attention Fils de Balla général bu Malika bu rëccee Fils ñoom ñaari waat ba tey ci suuf ba léegi dina jafe parce que général Malika tàmm na bëre bii ci mbapat yi. Ah, na ko. min na ko waaye nag position bi position bu doy waar. position bu métti la waa yaa ngi koy dóor di dóor day mujj rek nangu tëdd. mbaamu xaru jóge fii. mbaamu général Malika dafa a a xaru pour jóg. dafa war a xaru pour jóg. war a xaru pour jóg mbokk yi. général Malika fils na Balla. attention. fils na Balla ngi dóor père. parce que il mu jouer techniquement pour daan ko. daan ko fi mu ne nii yomb na. waaye xool mi ngi rëcc. général Malika général bu Malika mi ngi bëgg a rëcc attention Fils Balla mi ngi ko wër ba tey Fils Balla général bu Malika. normalement fi mu nii ki nga xamante ne moom mooy euh, Fils de Balla. waaw ni mu ko séntu nii daf ko war ñëw dóor ko ren ñi koy wax ñappaaxu. waaw pour ko dóor ci suuf. ok daf a jéem waaw laay laa xëy la ñoom ñaar ba waat na nañu per ba tey général bu Malika mi ngi ci en di jéem pour jug. et eh, dama ragal sax aussi que kii di euh, Fils de am fii coono pour adversaire bu mën a rëcc. ba adversaire bu rëcc ñoom ñaar. laa ilaaha illallaah caxabal na ko. daa. caxabal na ko daan loolu la arbitre non daan na ko li mu wax daan na ko. daan na laa ilaaha illallaah. arbitre na daan na ko lu ñu waxoon. waaw général mooy favori. mooy favori. léegi lan lan lañ gis. outsider bi moo daan bi moo daan ko. coowoo ñu fi mbokk yi Fils de Balla Gora Sock Gora Sock à droite Fils de Balla à gauche ku ci nekk jiital sa tànku càmmoñ ñoom ñaar a jegante nañ li ma xalaatoon mooy am waaw waaw contact bi day teel a am Fils de Balla Gora Sock ñoom ñaar ñu ngi leewaatoo kenn puusul waaye mépp am na Gora Sock sànni na Fils de Balla sànni na Gora Sock riposte na Gora Sock Fils de Balla Fils de Balla sànni na attention moo Gora Sock daje nañu ñoom ñaar xeex nañu Fils de Balla Gora Sock attention Fils de Balla Gora Sock Fils a ngi xeex ak Gora Sock Gora Sock riposte ku ci nekk taxaw waaw waaw round d'observation amul parce que dañu xiifante woon round d'observation amul parce que dañu namante bëgg na jàppante Fils de Balla bëgg naa xeex mun ta ñàkk Fils de bëggee sonal Gora da ngay xeex ak moom Gora il faut nga jege Fils nii ngay def moo baax ngeen daw daje jàppante Fils de Balla na moo Gora Sock Balla daw fii la Gora Sock attention Fils de Balla Gora Fils de Balla file na Gora Sock bañ ñu wëlbatiku jàppante Gora Sock mi ngi bëgg Fils de Balla dindi loxo bi attention Fils de Balla Gora Sock door na perkit Fils de Balla duggoon na ko ca xabal ba laa ilaaha illallah daan na ko jël ba mu daanoon Fils de général bu Malika ee eh, xale bi ee eh, xale bi fu mu jëm kii fu géejawaay li fa am lan la. rek gars yi mi ngi nii rek. ma ñëw ma ñëw. waaw oh, mais lay la laa. géejawaay. géejawaay. yow war na laa may lu ne yow sa yarute sa yarute war na leen bu baax baax gis na sama ginnaaw mbalit yeeg ñun moom noonu la demee waaw fii moom noonu la demee ñun noonu lañ koy dundee di leen jaajëfal bu baax a baax a baax kontaan ci Babacar Diagne Cirque Radio lagros Rose fils de Balla Lac Rose jël nga fils de Balla fils de Balla la gën a nekk ci compétition bu ñuy xool ci doole fils da bala li mu wane ci doole jamono yi wane woo ko ci doole bu ñuy xool ci palmarès bëre nga ak ñu mu bërewul bëri nga bis yu mu bëreegul waaye mi ngi ci yoon de mi ngi ci yoon de mi ngi ci yoon te ndaanaan la Gora Sock ah <laughs> général bu Malika ah kooku cuuna du leen ñooñu cuuna du leen dande kon Lac li la war déjà premier mooy entraînement entraînement bu sérieux boo bëggee daan Fils da Balla boo bëggee daan Fils de Balla entraînel ba wow utal doole léegi ngay commencé entraîner ji ba combat ba bañ a génn fenn mbër nga dem lolu ji ndax bu mbër bu loloo màgg daan combat bi na mel ni sa premier combat bi soo ko jël sa carrière amaana nag Fils de Balla du woon sa yoon mu mënoon ngaa xool feneen mais gannaaw ba jël nga na dem entraîner ji bay bëgg a nga soog a bëri boo fa indiwul ay argument yu leer comme li la daloon ci Coence li la daloon ci Moussa Ndoye dalaat la ci Coence moo lay dalaat rek te Lac Rose war ngaa moytu loolu war ngaa bañ loolu sa démarrage sa fi nga tàmbalee nga moytu des descente bii nga nar a def tàmbalee en lion wala nar a en chat loolu dara jaru ko bàyyiwaatal xel ñax jëriñu caatu yoof nga jël Jackson nga bëreel moo am ndam sa kaw nga jël caatu yoof nga Jackson Thiatou Yoff ci benn catégorie la mais Thiatou Yoff daa doy waar de seetaan nga combat am ak mooy loolu de ñàkk yow it boobu combat boo xamante ne boo ci amee ndam moom defet boo amoon ci lamb safeetul waaye boo ci daanoo mën na laa yàqal Thiatou Yoff ki ngay bëreel ndaanaan la de tapetul faalewul kenn faalewul kenn ñàkk jëriñu ndaanaan la ma macha allah mbokk yi am na solo loolu mooy journée ETDR ñu ngi waajal la vingt le 20 août ñu ngi waajal le cinq août ñu ngi waajal le 5 le 6 le 13 le 12 le 13 yooyu yëpp ay bés la yoo xamante ne mi ngi ci làmb mi ngi ci sunu kanam incha allah la ñuy tëjee saison bi di leen jaajëfal nag bu baax a baax a baax balaa maa dem may jaajafal sama waa ji uus borom sama lunette sama lunette mooy lunette yu rafet yi ngeen gis ma sol ko ci sama waa ji moom moo koy defar moom moo ma ci doy ñu koy kontaane bu baax a baax a baax di ko ñaanal sunu borom sàmm ko defal ko jàmm mbokk yi Bantamba la ñu bëggalante ci ak yéen Syria maa lay siyaar ñu bëggalante ci ak yéen kontaane leen di leen jox dig daje mbokk yi mardi prochain incha allah ci beneen numéro waaye bàyyi leen xel làmb du li nga xamante ne saa yoo leen neexee ngeen arrêté ko ndax ay doomu jàmbur ñoo ci nekk di ci góorgóorlu te privé la joxoo leen leen ñoom li ñu tëggee kon bu leen leen di def nii dafa ñaaw dafa metti bàyyiwaat leen loolu xel mbokk yi ci bantamba la xewee woon c'est le bantamba c'est le bantamba Ahmed Sidibé tey la ñu àndaloon di ko yëngal le meilleur jaajëf Tudo sorte. Meu Deus do céu. É tudo sorte. Vagabond! la takk na ko takk na almaat siñoor daa bàyyi daal di jàpp ca la oh, am naa bëgg ko yëg di ci kaw yëg di ci kaw da koy daan la ilaha illallah la ilaha illallah nga yëkkati mër kal ko tabaxal ko ba yaakaar day daan mu rocceeku bàyyi la fa mais siñoor bu rekat la fa li ngay maye bari na de da lay bëgg nga daan li ngay maye da koy amaat ah maa di daan waaye yow yow maa di daan na ko doomu ginnaaw raay bi oh, doomu jokko doomu jokko bi moo xew ci digg géew laay laay la moo xew ci loolu Bamba Thiam la ilaha illallah daan léegi jàppante mbokk yi. ñu ngi jàppante bëgg na la la oh. bërekat la. mais xoolal lii. damaa xam ne dafa koy waraat. wër na ko ndox mi ngi ci kaw dugg ci suuf kii mooy booy Malika kii mooy bette seen bi boo ko xamul. da may laaj ma wax la kii mooy kan. dafa toog ñeenti at. waaw bëriwul. waaw booy Malika mi. Ah. moom moo amoon accident bi ci pool. Oh. moom lañ ko doon bal pistolet. Oh. wax naa la li ko dal xale bu dal. ba lu mu mënoon yàbbi ko yàbbi kooku moom la mën a dëkk voilà la prestigieuse cérémonie de l'African Women Leadership Awards, le plus grand rendez-vous d'affaires des femmes africaines et de la diaspora qui ont marqué leur trajectoire dans l'entrepreneuriat, l'innovation, la solidarité sociale, la performance organisationnelle et le leadership. le samedi 5 août 2023 au King Fahd Palace à partir de 19h30 sur le thème l'autonomisation des femmes dans le nouveau système économique agroalimentaire. Cette grande nuit des femmes leaders d'Afrique et de la diaspora sera entièrement dédiée à son excellence Monsieur Macky Sall, président de la République, pour ses nombreuses réalisations au profit des femmes et à Madame Marème Faye pour ses actions en faveur des plus démunis. L'African Women Leadership Award, événement phare de l'année, invite toutes les autorités étatiques, publiques comme privées, à venir rendre hommage à par la voix des femmes. Sésame. Pour toute information, veuillez appeler au 77 684 42 63 ou au 78 650 00 32. Sous le de son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, le cabinet international Ecofinance Entreprises présente la plus prestigieuse cérémonie de distinction des entreprises en Afrique, le gala des 100 entreprises

des chefs d'État africains qui le continent. Soirée d'exception et d'excellence, le gala des 100 entreprises les plus dynamiques d'Afrique et du Sénégal se déroulera le 14 octobre 2023 au King Fat direct sur 2 de télévision en Afrique. Réservation 77 462 07 53 77 570 20 gala des 100 entreprises les plus dynamiques d'Afrique et du Sénégal, célébrant la performance et l'innovation. li may nax bés di jooy di jumali dara xaar. sa jëkkër yaay ba mu ko téye moo yàgg. kay jël entourage am nag ñuus ñëpp ci xaj. kese yaayam ma rayé ko ci lépp. yow de yaa ñeme Seynabou ak yaayam. ah yaay xanaa danga fàtte ni Seynabou man ak moom deret moo ñu boole xanaa. yaa ngi caaxaan sa àdduna. ibbil dee da gis ne man yaayam mënuma kay. yow papa ji defal ma xol. très lii laa doon xaar venant de toi. mais yéex papa maa ngi daw bala may tardé. mu neex la mu naqari la Latir xaadar moo la yor xaadar moo ma yor moo ñu yor. Latir lenn rek a ko jàpp mooy ñàkk nangu dogalu yàlla yàlla mooy maye mooy xañe moo ko xañ moom may xaar. sa digganteeg xaadar am naa ci lu ma naqari lool. yaay xaadar dootuma demati këram. nga taxaw kanam àdduna yëpp na sa doom kum gënul gënu ko te seetlul ba nga ko waxee ba tey sa doomay dem ci kanam laajte di dellu ci gannaaw. Gagne un max de lots surprises avec le nouveau jeu Lu Dakk Neex sur la 2STV. Du cash t'est offert tous les samedis à partir de 11h. Appelle vite au 88 628 17 27. Donc boîte yi ngeen gis am na 150 000 am na 50 000 am na lépp loo xamante ni moo nekk fii ci plateau bi am na télévision cuisinière frigo ak yeneen i ngañaay yoo xamante ni mi ngi ci biir donc wax leen couleur yi benn par benn boobu defe naa jaune. et tente de remporter des enveloppes d'argent, des smartphones, des ordinateurs portables, des téléviseurs smart, des frigos et plein d'autres lots surprises. Ce n'est pas tout. Continuez à appeler au 88 628 17 27, 7 jours sur 7, 24 heures par SMS 2 Estivie au 22 500 pour répondre au quiz et tenter de gagner la coquette somme de 1 million de francs CFA. Je dis bien 1 million de francs CFA. Plus tu joues, plus tu as la chance de gagner. Alors,

Le Sénégal, 11 fois champion d'Afrique, arrive à Kigali avec un groupe hétérogène où de jeunes loups ambitionnent de se faire une place au soleil. À côté des cadres ayant déjà été sacrés sur le plan continental. Les Lyonnes, quatrième au dernier Afrobasket de Yaoundé en 2021, auront à cœur de se refaire une e Coupe d'Afrique des Nations de basket féminin. Fidèle à sa tradition de couverture des grands événements et original magazine des coulisses. le rendez-vous des découvertes, des exclusivités et des actualités chaudes. C'est à suivre tous les soirs après le journal de 20h sur la 2STV. ne ratez pas.